ñiñ ko cërale woon tey jii bis bi muy sëñ Saalihu Cuun ak njabootam njabootu Seex Béthio gi ñu ngi teew te dañoo taxawee ci bis bi taxawaay bu am solo taxawaay bu ràññiku ndax biñ leen ko yégalee ba léegi e, ñu ngi ci jokkoo fullaal ko yitteel ko ba mu xam ko bu wér sax boole ci bernde yi ñu taxaw ci taxawaay bu ama am solo loolu nag sëñ bi wax ne faaw ñu jottali ay kàddu yu cantam jëme ko ci Cheikh Saliou mii fi teew taxaw taxawaayu Cheikh Béthio di ko cant bu sant bu wér ci taxawaayam bu am solo bii yaakaar naa ne tur yi mu tudde boppam muy ndigal yaakaar naa wanewaat na ko ci bis bi kon ñi ngi koy jotali ay kàddu cant kon jox ki yor ci turu kii wax ci kàddoom sëñ sëñ Babacar mbay mu jotali ay kàddoom incha allah sëñ ji galas moom dañ koy denc ba gaaw ajjuma biir ñëw mu ànd ak ñoom incha allah. bisimilah kon sëñ Babacar. mën naa ñëw jël kàddu gi ci turu Serigne Salih Thioune bu Serigne Cheikh Béthio Thioune bismillah waaw asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu leen di ziare bu baax ñu leen di nuyu ci kàddoog sëriñ Saaliwu Cuun mii toog nee ay nuyoom ak i ziareem mi ngi koy jaare ci sëñ jiili mi toog ak sëñ Murtala mi nga xam ne moo ko boole ci bis bi ñu jàllaleel ko ay nuyoo nuyoom ci seen mag ju tedd ju baax joojee ci sëriñ seex Mbacke moom sëriñ Saaliwu ndax na lii bu ko amee sëriñ seex Mbacke moo tax na ne mi ngi leen di seereel ne sant na ko cant koo xam ne moom mënu koo mënu koo wax ci làmmañam mënu koo jëf mu ngi sant bu baax sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saaliwu di ñaan ci suñu borom ñu borom bàyyil ko ko fi bàyyil nu ko fi te yàggal ko te wéral ko ne ne fii amu fi kàddu ndax dafa nekk ak sangam ku nekk ak say sang nag ñu di la liggéeyloo wala ñu yéene la ndam ba tax ñu dugal la ci liggéey wu toll nii nga nekk ci. day mel ni jëf ji rekk doy na ne ne amu ci kàddu xanaa di sant rek sëñ Mourtala mii nga xam ne bi bi bi mu ko yëkkatee xelam da koo jàpp ngir mu boole ko ci waaye moom ne ne deful dara lépp lu ñu fi def rek sëriñ bee waaye moom deful dara sëñ Mourtala sëñ bi ne ne sant na la bu baax ci boole gii nga ko boole ci liggéey bu rëy bii nga xam ne lislaam rekk ko yëkkati ne ne mi ngi lay sant di sant sa mag ju tedd ji nga làngal di sant jullit yi fi teew yépp ne na mi ngi sant bu baax ne ne daal mën naa wax lépp lii waaye day di taalibe boo xam ne kilifaam da koy liggéeyloo mu nekk ci liggéey ba loolu rek moo ko indi ci bis bi moo ko indi ci barab bii ne barab bi tam mënu fee toog te xelam du fàttaliku jàmbaaram joojee di waajuram dib sëriñam di sëriñ Béthio Thioune ne ne yéen a joojee sëriñ Saliou amoon ci moom ba tax mu liggéeyloo ko barab bii ne ne yéen a jooje rek la sëñ Mourtala mi am ci moom ba tax mu dugal ko ci liggéey bi ne ne ñaari lig yéen yooyu rek moo daje ne ne kon nag amu ci lu dul sant te ñaanal sëñ Mourtala ak mbokkam yépp suñuy borom bàyyi leen fi di ñaan sa jiili mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ bi te doon magam sa nekk bu nekk toog ak moom nee na mi ngi koy ñaanal itam li mu ñaanal sëñ Mourtala rek nee na mi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp te jéggalu bu baax